tiis ak jaxle moom lañuy ñuy nemmeeku bu baax a baax fii ci marché bu Grand Yoff gannaaw bañ fi nemmeekoo ay taw yu baree bari tax na ñu faree si bile marché daal di jànkoontere ay jafe-jafe yu bëree bëri li ma si mën a wax mooy lii dafa yàgg parce que boo xoolee lii da ngay xool suñu yaay suñu kii kenn mëntu fi jaay xoolal marché bi nu mel ndox bi mooy jóge ba Nord Foire imagine ndoxu Nord Foire ñëw Scat Urbam jóge Scat Urbam ñëw Asalem Grand Yoff jóge Asalem Grand Yoff ñëw Arafat jóge Arafat ñëw Grand Yoff léegi ndox bi fii lay versé yaa ngi dégg boo waxee mairie lii depuis ñaata at ñu ngi dund lu mel nii xoolal lii lu mu ñaawee yaa ngi dégg affaire bi dafa ma metti parce que man fii laa juddoo fii laa yoroo mais xoolal nu mu mel depuis ñaata at depuis ñaata at lii ñu ngi koy dund góor gi le nekk dawalkatu cag-cag fii si Grand yof tax na mi ñëwaat bu baax a baax si problème yi nga xamante ni moom la ñuy jànkoontele ñeer wàllu dem bi ak dikk bi waaw marché Grand moom circulation bi xaw na metti beneen instant ndax li ko waral mooy ndox mi nga xamante ni day génn ci biir marché bi loolu moo gën a yokk circulation yi boole ko tali bi dafa am suuf quoi ndax ndox mi buy ñëw day indaale suuf ñun ñi nga xamante ni ñun ñu ngi liggéey ci moto yi quoi ñun ay livreur lañ livreur la ñuy def pour ñu dugg ci marché bi sax problème la man ci suba rek maa ngi dugg ci marché waaye gisoo après dama kii ba fakka salu sama tànk bi ci la daggee nii quoi loolu moo ko waral ndox mi moo waral yooyu yëpp loolu nag bëgg nañu état bi jàpp lañ ci daal wala ñi nga xamante ni ñooy waa maire bi jàpp leen ci walla kii rek ñun jàppale ci ndox mi rek danañ jël loolu daal. marché bu Grand Yoff nekk marché bu mag nekk fii si digg ndakaaroo tey jii mu nekk si ay guddi yu bët setagum tax na ñoom ñilee faree si bile gox daal di artu autorité yi ñu jàll ay saafara yu gën a gaaw ngir ñu mën a delluwaat si seeni activité